programme bu am solo nañu dem ci biir Télé Futurs Médias leen ma kan moo nekk ci réalisation bi ki nekk ci réalisation bi Pape Samba Thiam Pape ah Thiam Pape Samba Sam laaj leen ma kan moo nekk ci wetam di ko dimbali ba son bi di toq seen nopp mu ngi tudd Top laaj ma ku ma jàkkaarloo ci caméra yi bu jàkkaarloo na xudd ma ne ko xudd ma may xool laaj ma ko kan la yaawoo gerbe yaawoo yaawoo eh, yaawoo laaj leen ma kan moo leeral lumière bi ba mu leer nañ ba muy leer nañ laaj leen ma kooku mooy kan kooku mooy Mister Leuz Baro Leuz Baro los, bottom, hey, los, bottom, hey, los, los, los. ci teewaayu go go go Abdou Fa Gueye Gorgui Mendy Abdou Fa Gueye go go go ci ndimbalu ki nga xam ne moom mooy Caba ñanga ak Jaara coordonné bu moo sëkk ki nga xam ne moo yor coordination bi ñu ne ko Fatima Evans Fati Evans Fatima Fatima Fatima ñu am mbégte contentement ci teewaayu suñu xarit Pablam troisième photo passage suñu père ñu naan ko père Assane Ndom sécurité centrale sécurité hey mbokk yi nag tey suñu programme dina ñëw ci ki nga xam ne moom mooy papay Marie Le Pen ñu naan ko Jean Marie Le Pen ñëw di tontu doom ji ci wax ju ñaaw ji nga xam ne yëkkati na ko tasare ko ci àdduna bi te moom góor gi daa feebar te ki koy faj africain la di africain bu ñuul moom nag nee na day delloo njukkal africain ndax doom ji jëlul yoon bi nga xam ne moom la xàlli woon buñ ci jógee dina ñëw ci ki nga xam ne mooy Idrissa Seck François Hollande Karim Wade ca Qatar nan lay mujjee ñi nga xam ne mooy double nationalité yi mbokk tey la moo programme ki ñuy dala nag mooy bay commercial mbay dikkal dikkal mbay kaay soo amul blouson del del kii yow bii nga soloon keroog nga bëgg mu ñëw fii. non keroog tubéy bi dafa bleu bii tubéy bi dafa. bleu eh, bii la bii la. moom laa soloon. waaye moom nga soloon xanaa gisoo li ma leeree. dama am combat. xanaa gisoo li ma leeree. man dama am combat. waaye amoo benn combat da nga amul loo sol. naa la wax nag lu tax ma am combat. waaye yow amoo loo sol. mbay dégg naa démb da nga fanaanee biir metti mbaa jàmm la. laa ilaaha illallah. lu xew. li li ma waxoon keroog. waaw moo dal. ibil. ibil leeral ko lan la. ndekete. ku fi moytuwul beneen spectacle. waaw laa ilaha illallah da nga dëgër bopp rek wax naa la ko. gisoo moo tax démb ñëw ma. man kay xaali moo ma woo ne ma sa booy bi. waaw dafa feebar ma ne ko lan la mu ne ma benn spectacle daal la topp ci benn tànganaa di ko lekk ma ne ko ban marque la mu ne day bañ a yàq marque boobu mais daal spectacle bi dafa laxu si biir bi. xaw ma fu mu jëm xaw ma fan laa jëm démb ma ne yow nee naa la randa moo fi nekk passe ma ko ma wol. oui ma xool la randa. neex. te yàlla gaaw a ñor sakkan. gan du la bett randa ngi nii. du ma ko wax de du ma ko wax. sept minutes neuf minutes mu daal di ñor. du ma ko tudd randa randa bii moo baax sept minutes boo amee ñaari gan ba ñetti gan lii rek suur na leen daf maa rusloo bu la neexee soo ko bu la neexee poobar ko daf ma ne tegal xoolal lii bu ban spaghetti ngay lekk léegi bii rek randa lay lekk lii lan la wuy ma léegi xam nga lan ah. waaw waaw doo ki kii kii kii ki defar lii doo ma jox li sama xarit la sa xarit la loo bëgg damaa bëgg mu jox ma si kees muy commencé sax di di jaay di. jàppal ne bés que ni tey la nga def ko ci ay mbuus di ko crème di ko jox. boo ko defee crème grâce. Eh, sa doom numéro rek nag. non bu si ah. ma eh. day mel ne xolal beneen àddina nga nekk. jox ma numéro après nga jox ma numéro xaaral jël ko. bii nag moom boo ko defee njar moom maar lay taani mais mbay xoolal xoolal xale bi xale fii ki ñu andi woon fii mais gis nga leen eh bul ñëw de bul ñëw tey bul ñëw sama booy nga eh, waaw Assane. Assane Assane Assane Gueye. Assane Gueye maa sa grand la. Assane li nga may jox bu ko jox saa yi est-ce que lu ma jox rek dinaa ko sa bopp est-ce ma dama am combat. yow dama am ah. combat. amoo dama la bëgg la gën eh! sama doom la Mbaye sama doom sama doom la. baax tamit euh, soxna euh, Bintu euh, Sayda Thiam ñu ngi koy ziar tamit ci woy bu rafet boobu nga xam ne woy na ko jëmale ko nag ci tarixa yaa ñuy am mbégte contentement di ci ànd yëpp waaye am ñu mbégte contentement ci Strong Cheikh ak Randa bi nga xam ne nag moom moo nekk seen émission Kouthia Show di leen gunge di gërëm kilifa général yi nga xam ne xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dale ko ci sëñ Sidi Makhtar ñu koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram ah, tamit di tamit Euh, euh, xalif général Tidiane yi moom tamit euh, Cheikh Ahmed Tidiane si Euh, almaxtum ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér euh, euh, ñëpp nga xam ne nag dañoo jiite ay tarixa ñu di ñaanal ñoom ñëpp ñuy tàmbali si ñoom di leen ñaanal alaaji suñu papa alaaji Cerno Taal ziar nañ ko alaaji Cerno Bokar Alpha Ba ca war a fondé ñu ngi koy ko alaaji Cerno Taal ca Sacré ñu koy ñaanal tamit ñaanal ba benn app waaye tamit alaaji Cerno euh, euh, Abdourahmane Bari ca Bogol ziar nañ ko ak Cerno Hamdu Aaw nekk ca Celaaw ak suñu papa alaaji Ousmane Ndiaye waali kaamin di am mbégte ci soxnam Adja Mam Boussa Cissé di ko ziar suñu papa suñu sëriñ di alaaji Basiru Baara Mbàkke fan bu gudd nañ koy ñaanal ak wér ndax bu wéree rek taalibé ñëpp daa dee ak mbégte ndax ñaanam du jóg toujours ci Télé Futurs Médias rawatina ci émission Kouthia Show Go Fall taalibé mu koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak yaram moom ak sëñ Mbaye Sy Mansour nekk ca Tivaouane ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram yàlla jàppale ko tamit ci wéram ak tamit bàyyi ko mu yàgg lool suñu kanam ak wëllëram imam Tamsir Sakho xaritam di bu wër tam di sëriñ ah, Babacar Abdoul Aziz Sy ziar nañ ko ca Tivaouane sëriñ Maodo Sy bu maam Abdoul Aziz Sy ñu ngi koy ziaré waaye tamit Chérif Ahmed Tidiane Aïdara ziar nañ ko kii nag sama papa bopp la di Alaaji Seydou moo tax

baax a baax a baax ziar leen ziar waaye tamit monseigneur Benjamin Ndiaye mi nga xam ne moo jiite jàngu bi ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram sama yaay bopp di maître Fatima Fall huissier de justice nekk fooy nga xam ne nag moom mooy ca Ndar yàlla ko yàlla defal jàmm gërëm nañ ko sant nañ ko sant bu amul benn app mook Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy euh, ñu ngi koy ziar bu wér wér lool lool lool waaye sama papa bopp tamit nekk foofu ca dëkk bi nga xam ne mooy euh, ñànk édi Thierno Mamadou Adama Gaye di xalif Thierno Adama Gaye ziar nañ ko bu baax ak mboolem taalibe bi boo xam ne mu ngi ci ginnaawam waaye di berndel nuyoo bu baax a baax alaaji Mansour saar wax dëgg yàlla suñu papa la ak euh, suñu yaay booy Adja Kinisi nekk ca buddi ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement di ànd ak ñun di leen ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ndax ñii ñëpp ay kilifa diine yoo xam ne bu ñu leen ñaanalee ba pare nag dañuy ëlbatiku ñaanal patron directeur général PDG bu groupe Futurs Médias di Youssou mu yàgg fi lool lool lool lool mooy wax dëgg yàlla mbégteeg bépp euh, travailleur waaye tamit ay soppeem ak sénégalais ak képp ku nekk ci àdduna bi mbokk yi ki ñuy seeti mooy Idrissa Seck lu wax ñu koy seeti nag nee na nationalité yi ñuy wax ñaari nationalité yi Macky Sall di wax mën na fee indi cooloo xam ne kenn du xam fu muy fayee te moom nee na ci lu leer la ko teg Idriss Seck nag mooy ndaamal kajoor borom kajoor moom la ñuy seeti Idi mooy ndaamal kajoor Idi ndaamal kajoor kajoor Idi idi jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant xam nga ne namante bi am sama diggante loo yàlla rek moo koy def saa yu ma yëkkatee sama kàddu nag ñu ne ma ngay waxati te la muy waxati xam naa njombe la ndax man saa ma waxee rek sama wax jalo muus la xam ngeen muus muus du jal ci neen maanaam muus bu demee ginnaaw kër da koy jal bu demee tamit ginnaaw kër maanaam di tuur ndox da koy jal kon buñ ne sama wax jalu muusa boo wàqee fekk fa dara kon muus ku wàqi jalam fekk fa dara man nag maay idi muus ndax man lépp loo xam ne jal naa ko boo ko wàqee fekk fa lu lóor dama ne affaire nationalité yi Macky Sall daf ñu bëgg indil ay problème yoo xam ne kenn xamul fu muy tellu ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di ay sénégalais nga nekk Gambie war a nga nekk Mauritanie yaa xam Italie États-Unis waaw boo fa demee ba am fa nationalité léegi sa doom bëgg a ñëw ci réew mi bëgg a suqali réew mi ñu ne déedéet du présenté wu candidat ndax du sénégalais loolu jarute jarute indi histoire ndax sénégalais bu nekk am nga sañ-sañ yow boo demee ba màgg nga ne nationalité bi nga xam ne moom la ma sama yaay defal bëggatuma ko bi laay jël waaye du tee dëkk boobu nga xam ne fa nga lañ la déclaré nga am fa nationalité soo ko bëggee jël jël ko boo ko bëggul jël tamit bàyyi ko fa waaw léegi nag loolu warul xañ ki nga xam ne ne baayam sénégalais la juróom-ñaari maamam sénégalais nañu ci côté baayam ak ci côté yaayam mu juddoo réewu jaambur am fa national nga ne ko du laaj réew mi loolu fu ñu ko teg Côte d'Ivoire loolu ko naroon toj te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci monde libéral ni parti socialiste nekkee parti socialiste français ak yeneen dëkk yi ñun tamit mouvement libéral yi noonu la ñoo tënkoo ci dara te Alassane Ouattara ci la bokk moom Macky Sall ci la bokk li Alassane Ouattara doon xeex tey ba jiite Côte d'Ivoire moom Macky Sall munul bokk ci loolu ba pare di xeex loolu nañu bàyyi sénégalais yi ku nekk ak sa nationalité boo ko bëggee jël jël ko ndax lii day indi cooloo xam ne kenn xamul fu muy yem de au conseil bi ñuy wax nii territoire loolu nga def ko au conseil bi nga xam ne moom mooy des sénégalais de l'extérieur ndax sénégalais yi nekk ci extérieur ñoom ñoo gën a soxla Mali ngi nii Mali ñoom dañoo def au conseil bu Mali maanaam immigré yi nekk ci àdduna bi. ndax lii du ay waxoo caaxaan dama ne maki Sall man saa yu ma waxee nga ne Idrissa Seck daf may yàqal mais boo ma dégloo mun ngaa lijjanti réew mi ci sama xel yu ndaw rek ba defaru dootoo am opposition dëgg lam déet waaw léegi nit ki bu waxee rek kenn laay waxal fukk daa daa dee ñëw di ma tontu te bu ñu demee ba ci biir xam na li ma wax dëgg la ndax man sama wax jalu muus la boo wàqee fekk fa dara muus du jal ci neen waa léegi nag réew mi ci boppam dañ ko war a waxtaanee man saa yu may wax Macky Sall laay waxal waaye ñeent ñoo may tontu mbaam may ñaa ngay wax Abdou Mbow moom nga xam ne kiriku la kiriku xam ngeen kiriku mooy lu ndaw loolu nga xam ne motul nit day doo ko daanu moom mooy kiriku suñ ne deeta waaye enseignant bi nga xam ne ne saa yu wax gémmin ngaa ngay tooy xep tuflit ba tuflit micro ya xam ngeen ko du ma jaar ci turam xam ngeen ko borom cooli ki fi geddoon première dame dem jële ko këram kooku du ma jaar ci turam ñoom ñoo may tontu ak ki sant jaxate te liñ may tontu xamuñu ci dara Macky xam na ne man nand te laa lépp lu ma ko waxal rek bu ko gisee wax te dina xam ne ne dëgg la waaye dama ne man maay jalu muus sama wax jalu muus la ku ko wàq fekk ca dara maay muus maay jalu muus maay muus maay jalu muus ku ko wàq fekk ca dara maay muus maay jalu muus maay muus maay jalu muus ku ko wàq fekk fa dara maay muus maay jalu muus muus du jal ci neen muus du jal ci neen muus du jal ci neen muus ku ko wàq fekk fa dara ku ko wàq fekk fa dara ay ku ko wàq fekk fa dara ku ko wàq maay muus maay muus may muus kuy muus kuy muus kuy muus may muus way may muus way ku ko wax ñeew ñeew ñeew ñeew way ñeew ñeew way ñeew ñeew way ñeew ñeew may ñeew ñeew way ñeew ñeew mooy gaynde maki mooy gaynde may muus Macky mooy gaynde waaye maay muus ak contentement bu mag euh, nu nañ ko moom Marème Soda Thiam ñaan ko madame Niang nekk ci États-Unis ak euh, doomu bu ñam Pape Ousmane Niang ñoom Papis euh, Amina Fali Fili Niang ñu nga ca New York ca France ca États-Unis actuellement en vacance fii seen kër maam ñu koy nuyu di ko ziar bu baax di nuyu tamit Awa Touré Fall ak yaayam ñu naan ko Tata Farma Fall ak magam bu ñu naan tuuti gën koo xamee ci tur bu ñu naan Bijou dëkk ca Paris waaye nag euh, Paris ca dëkk bu ñu naan euh, Pont euh, Toise depuis dans le quatre-vingt-quinzième foofu nag ca France ñu ni tamit suñu papa ñu naan ko Pascal Cormon Pascal Cormon tubaab la boo xam ne nag mu ngi foofu ca France mais vraiment dafa sopp groupe Futurs Médias émission bu nekk mun na la wax kan moo koy def ku koy présenté rawatina Kouthia Show moom tubaab bi wax dëgg yàlla déggul waaye nee na mu jotee day toog di seetaan Kouthia ñu naan ko père Pascal Cormon di tubaab ci ndey tubaab ci bàyyi di juróom ñaari maam ñun ay tubaab nañu mais mu sopp Kouthia lool ñu koy nuyu di ko gërëm di ko ñaanal fan bu gudd euh, je vais te dire ça en français longue vie père je suis vraiment content de toi père Pascal Cormon tu es un vrai Euh, vous avez euh, vous avez la peau blanche mais l'esprit africain et on vous souhaite longue vie vraiment père et on est très content de toi di gërëm tamit euh, bu baax képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan di wax tamit occasion bu mag di wax joyeux anniversaire a Oumy Ndiaye Londres mi nga xam ne nag ca Londres lay wootee toujours kooku sopp télé bi rek moo tax nag wax dëgg yàlla moom bëggul dara lu ko naqari lu jëm ci télé bi Serigne Umar Ngom nekk ca Daaru Umar Ngom nekk ca Daaru Salaam dëkk bu ñu naan Njakkaan ca Bambey ak waa kër Serigne euh, Serigne Abdou Salaam Ngom yëpp mu ngi di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yëpp yëpp yëpp waaye di nuyu tamit euh, sama grand frère monsieur Alé Sine ancien directeur des impôts et domaines ak Anta Sarr madame Sine di nuyu tamit Mbaye Ndiaye di Mamadou Mbaye entrepreneur ca Tivaouane am mbégte contentement bu yaatu yaatu yaatu tamit bu mag a mag ci képp koo xam yaa ngi ñuy seetaan rawatina euh, Abdoulaye Ndiaye nekk foofu ci bu bu dee wér gu yaram waaye mbégte tamit bu yaatu ñu koy am ci mam tuuti Camara ak Ami Sow di ko nuyu bu baax ak ñoom Rama Sow chéri euh, Loïc Lok nekk euh, Lok nekk ca Belgique ñoom Nogay Diba chéri Fallou Sarr nekk ca Belgique borom anniversaire bi ba ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ñi maandaw nuyu nañ ko ak Elk Sow ñoom Aïcha Fall chéri Matar Fall Seynabou Thiam nuyu nañ ko ak a Gissé ñoom Mounas Faye ak euh, Pa Khaliba Euh, bëgg Kouthia pa xale ba bëgg Kouthia nekk ca Grand Yoff ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement mbokk yi daal bu leen fàtte ne kontaan nañu trop ndax tey émission bi dañ ko euh, dëbb dëbal ci euh, ndimbalu Pape Samba Thiam ak ñi nga xam ne équipe bi nekk ci ginnaaw kenn ku nekk dëbb dëbal nga ba mbir mu mën a am ndax nag ay tolof tolof day am technique waaye ñoom fexe nañu ak seen xam-xam ba génn loo xam ne bu ko tubaab yi defaroon télé bu ñu leen waxee ne solution boobu sénégalais moo ko def ñoom ci boppam nga xam ne moo amoon tolof tolof day jaaree foofu rek lamb ndax kenn dootu ko tamit ki nga xam ne moom mooy cameraman banlieue bi mooy Pape Fall mooy Pape Fall cadreur sama copain Pape Fall nag wax naa leen ci caméra kay makka yi ci la jàngee caméra moom moom moom moom Pape Fall parce que Pape Fall erreur am mooy Pape Tichet Fall laa ko tuddee moom dafa bëgg TFM ba nga xam ne fu mu def moom lay sol nee na ma Kouthia boo ko doon wax ba 4 heures du matin tamit loolu lay sol ngénte dëj anniversaire Tichet TFM lay sol loolu nag moo jëra li jënti ñu dem seeti ñi nga xam ne nag <laughs> waaye na bi wa na yow léegi da ngay jaar fi doo fi jaar loolu non xaaral non xaaral maa la boole Paa yow temps yi sa affaire dara leerul baax na kon léegi mbokk yi ñuy seeti moom mooy François Hollande moom François Hollande ci boppam dafa mere ñi nga xam ne dañuy commencé indi ay problème yoo xam ne kenn xamul nan la problème yooyu mën a indil France France dafa jaxasoo François Hollande nelawatul ndax am na ñu koy yàqal ñu dem seeti François Hollande bu ñëwee lan lay wax. <coughs> C'est vrai. Dégale. bonjour. Bonjour. Bonjour les Français. Bonjour. Bonjour tous les Européens. Bonjour. Bonjour. Et je vais parler français tout euh, deux minutes. Après, on va parler tous les langues. Actuellement, en France, il y a beaucoup de problèmes. Les bombardements, les attentats, les djihadistes, tout le monde. Personne n'a pris confiance sur personne. Mm-hmm. La France n'est plus la France. Euh, je pense que si c'était hier, on n'allait pas intervenir dans des problèmes qui ne nous concernent pas. on a colonisé quelques pays africains on devait gérer que les pays africains depuis qu'on a bombardé Libye on n'est plus en paix on n'est sécurité tout cela c'est Sarkozy mm-hmm. Sarkozy c'est lui qui a tout fait il a détruit la France il n'y a plus de confiance même les Français de père et de mère il y a certains qui sont des djihadistes mm-hmm. donc il n'y a plus de confiance pourquoi il n'y a plus de confiance Tu peux t'appeler Mohamed et être un bon croyant et ne pas être djihadiste. Mais si tu dis ton nom, je m'appelle Mohamed, les gens te fuient. Et je ne veux pas vraiment que tout le monde fuit les musulmans. Parce que la France est un pays de démocratie, liberté et égalité. Oui, et, oui, oui. D'accord, tout ça, c'est Sarkozy qui a fait ça. Mais non, mais maman va tout dire au parce que Sénégalais nekk France ils sont au minimum au minimum deux millions Sénégalais mm-hmm. euh, généralité mm-hmm. maanaam ñaari millions euh, immigrés mais nit ci ëpp Sénégalais Mali lii yëpp mu dal ñu kenn moo teg Sarkozy mm-hmm. Sarkozy moo indi problème yi yëpp te jaru ko man léegi nelawuma tuma guddi nelawatuma bëccëg ponkal bu dey ne man awma jabar te doon nelaw guddi loolu problème la parce que euh, jigéen moo lay mottali et su ma waxtaan ak sama njege ñaay du du tontu te njege ñaay day am nopp am làmmiñ am gémmiñ mu lay bës nga koy bës ngeen di waxtaan xalaat léegi euh, tumuranke sama biir nekk tumuranke ci biti dafay métti vous Français na ngeen def très attention boo leen gis nit mu tudd Mohamed wala Abdallah ngeen yaakaar ne jihadiste la loolu boo leen ko def na ngeen ànd ak dal lépp dina sotti boo xuma eh, li musiba bi am lépp Sarkozy la mm-hmm. moo indi lii yépp lii lii lii ngeen baal ma man daal eh, dama bëgg eh, ñu xoolaat tuuti mm-hmm. ñu jéem a woo ay sëriñ mm-hmm. parce que sëriñ solution la nga lu am na président Macky Sall il m'a dit que ya Fatick y a ñuy defar tul bal du dal sa kaw paka du la dugg am na ñoo xam ne dañ lay defal garabu accident oto boo dugg di nga mucc xam ngeen mucc c'est sortir euh, rescapé donc euh, ñu uti galaj parce que tamit galaj baax na de galaj baax na de galaj baax na xam na ni galaj baax na ndax cooli yépp lu mu jig ma ndigg bi ma am sama ndigg te maa ngi utee gàllaaj dëkki buy naan ndofay fa laa ko amee ñetti petaaw ak bopp jinax bu ñu aw taf la lamono si ndax moo ma ba tey si doo kon dina léegi li ma bëgg mooy xam naa sax dama koy wax ci olof parce que su ma ko waxee ci français dañu may mere dama war a dugg néeg di damay dugg néeg góor damay jóg nekk ko damay jóg nekk parce que loolu tamit il faut ñu commencer di ko def mun na nekk tolof tolof dëkk boo xam ni quatre-vingt-dix pour cent yi dugg ñu nekk gox du du góore du góore du góore parce que ñun dañu ko dañu ko mais nit ñu ñuul boo xoolee sax ñoo ñu gën a set ñu ñoom dañuy sangoo set bu ñu defee amour dañuy jàpp dinañu laal ndox mi quatre fois dans la journée fajar tisbaar takkusaan timis ak ge te ku jotee ak sa jabar sangu bu ñu demee ginnaaw kër def ndox ñun fomp clinique sëni léegi sax way nañ leen te waxuñu leen ko ñun daal léegi man li ma bëgg mooy ñu dugg kër ku ci duggul kër néegu gox nga jéem ko dugg parce que xëy loolu mun na wàññi musiba bi dal France dëkk boo xam ni yi euh, ci bari jóguñu néegu gox looy gën a mag muy gën a métti te bu métti du ba moo tax ma waxoon ne léegi nañu jóg booru néegu gox dégg ngeen leen te jàmm te yéen i jàmm lii yëpp nag Sarkozy la moo ko indi moo dugg ci lu mu waxuloon dugg bombardé libi libi tas àdduna yëngoo waaye man tiit na te wax dëgg yàlla jaaxle na léegi nag man dama bëggoon africain yi ñu bàyyi leen fii parce que mun nañoo dimbali ci lu bari accidentul feebar yu bari dañuy am gallet bi ñu yaatal Marie Le Pen nag bu leen ko déggu dafa dof baax na kon léegi euh, dañ ma waxoon ni ma bu jaxlee nga taasu jaxay malam bi jaxay kumba mi mi malam oui oui. mi kuwa. oui jaxaay. ma ñëw. il paraît boo doo génnee gu góor dañ lay defal kasak. oui ñu kasak. en attendant ma dugg néegu góor. nga ñi ngañ ngaari. wax leen cigarette. nga ñi ngañ ngaari. nga ñi ngañ ngaari. oui bu la sa yaay yónnee ŋaañi nga spaghetti randa ak strong shake waaye di gërëm kër Baye Cheikh Mamour Insa Diop chef religieux à Dakar Cheikh Ababacar Diop euh, Cheikh na Cheikha Aïda Diop Ndey Fatou Diop Ndey Daba Diop Ndey Dabo Diop Ajaratu Soxna Xari Sall nekk ci Angle Mousse ak Adja Sagar Sall nekk ci HLM Angle Mousse Zakira ñu ngi koy nuyu daba ñu naan ko bijou moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Mouhamed Kassé ñoom Seer Insa Mam euh, ca Paris di nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi foofu nag euh, di am mbégte contentement waaye tamit euh, ñuy tamit suñu jigéen ñu naan ko Ndeye Ndiaye Lamsal le 24 bii di ñëw nag da koy fekk ca Lyon di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Nafi Diop organisatrice su bés boobu ak Daba Seydi artiste moom ak Ndeye Ndiaye Lamsal ca Lyon dana neex le 24 lay doon Fall nekk ca Paris i Idi Fall nekk ca Paris ci cité Lamine à Thiès ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte contentement ci ajaratu euh, Ndeye Ndiaye nekk ci Italie dëkk bu ñu naan Sibi Sibitella euh, di euh, di Romagna foofu nag euh, ñu ngi koy nuyu bu baax di am mbégte contentement ci monsieur Pape Diaw premier coordonnateur APR foofu ca Italie ñoom madame Rokhaya Ba consul général ak vice consul Khady Sall euh, Mbacke Gueye nekk ca Bologna ñu ngi koy nuyu waaye tamit di gërëm bu baax ki nga xam ne suñu yaay la Adja Ndeye Ndiaye ci Italie wax dëgg yàlla téléphone am daawul jóg suñu nopp bés bu ne di ñu ñaanal moom tamit euh, samedi le 27 ña nga amal benn meeting bu mag foofu noonu ca Italie ci teewaay président de la République Macky Sall xam naa dana neex trop waaye nag ñun nee nañ dañoo bëgg sargal El Hadji Abou Bilal ak groupe am foofu ca Italie bu fekkee ne nag ñoom ñëpp mënuñoo dem sax danañu yónnee koo xam ne mooy indi sarga bi fii Sénégal war am ku dem représenté bi su mun daal jàppale daal moom Adja Ndeye Ndiaye euh, ca Italie nekk foofu nag ca dëkk bi naan Civitella de Romagna ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd a guur yaram bésam boobu yàlla ci am ndam mag di samedi le 27 août foofu ca Italie Njaxat Ndiaye nekk Thiaroye sur ak euh, West Foire di borom kër Ndeela distribution yàlla na ko yàlla defal jàmm moom na di émerger li nga xam ne mooy secteur euh, privé bi ci côté jàppale xale yi ñuy liggéey moo taxit Ndiakhate euh, Ndiaye ñu ngi koy ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram di nuyu tamit professeur Moustapha Ndiaye neurologie la nekk hôpital Fann di faj xale yi wax dëgg yàlla te amoon kattan pour dem bitim réew faje ay doomu yeneen jàmbur waaye ci réewam la ko bëggee moo taxit ñu ngi koy ñaanal carrière bu yaatu te fan bu gudd boole ci Souley Umaru nigérien la waaye bëgg na ci ñoom euh, toog nag nee na mu ngi souhaité joyeux indépendance bu neex tous les ressortissants yi nga xam ne ñoom ñoo bokk dëkk seen fetu indépendance bi nee na bëgg na ci lool di ko partagé ak ñëpp nee na dara du sedd incha allah ñoom samedi sax dañ koy def benn soirée bu mag boo xam ne dañ ko ciy bëggalee képp xam ne ressortissant nga te bés bi nekk bés bu mag ci yow professeur Alpha Dat koy nuyu ak waa parti crédible euh, crédibilité ñoom ñëpp di ñaan fan bu gudd ak yaram Pape Samba euh, bi yaawo gervé ci caméra bi su yëgal na ko pour sama dëkk la ca Linguère daara dafa neex démb mu ne ma gisee suñu di way ca daara nee na wax dëgg yàlla waa ji nag delloo nañu ko li nga xam ne nag moom mooy waa daara Jolof dañuy seeti góor gii toog ni doom ji mel moom noonu la meloon mais nañ leen di nga nekk xale bon màgg baax mun ngaa nekk xale baax màgg bon mun ngaa nekk tamit xale bon màgg baax yàlla mooy changé nit moom nag kenn gënu koon bon moom mii toog nii moom mii mooy jow boppam kenn gënu koon bon waaye dem na ba dem na xam ne àdduna nit ku ñuul ak nit ku war nañ mën a dëkk mu changé ba doom ji nag di ko diingat ci parti bi ba nangu parti bi ci loxo nañu seeti baay ji nga xam ne moom moo jur fi jaaroon démb di Marie Le Pen kii nag mooy Jean moo jiitu Marie Le seeti papa yi Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen mu ngi ñëw Jean-Marie mu ngi ñëw. Oui. Oui, merci. Merci. Oui, j'arrive. J'arrive. Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen. Marie Le Pen. Maria. Jean Maria. Jean Maria. Oui, oui, Marie. Jean Marie. Oui, bonjour, je vous demande bonjour. Bonjour. Je suis content. De tout, tout le monde, je suis content. Et je dis bonjour tout le monde. Bonjour. je suis devenu vieux, je pense que 70 ans et quelques. ma fille, elle s'appelle Marie Bonnepeine. Ah Marie Bonnepeine. Elle est mauvaise, c'est ma fille. Je suis son père. Elle est devenue grande et elle a voulu prendre le parti. Je dis non, on est au Est-ce qu'une fille doit amener son père au tribunal? C'est pas normal. on, on, n'est même plus dans la même maison. Elle vient seulement voir ses parents. Euh, euh, il dit, il dit des choses sur les Africains, c'est pas bon. C'est pas du tout normal. man maa jox jigéen bu bi fii ñëwoon démba di xas nit ñu ñuul ko jiite woon maa gënoon bon ñëpp. Mhm. waaye ma màgg démba am jàngoro. yoo xam bi yëpp euh, day métti docteur yi sax dañu ma wax pour euh, sa sa yi wàcc te ki faj nit ku ñuul mhm. mu ngi dëkk euh, Mali mhm. fii la juddoo mi moom faj mhm. woy ki faj kii mooy bëgg nga dund man bëggu moon ku ñuul waaye bi ma demee ba màgget nit ko ñoon moo may faj ba ma mën a faju mari moo bon mari wax na toog ci télé àdduna ñëpp di ko wax mu France yàqu na équipe France africain ñoo fa nekk loolu ko bon moo kuy wax man bàyyam daan ko wax waaye dama dem ba àddina dox ma xam jaru ko mm. mari ko yées la li muy wax ci jigéen africain yi dañuy jox loolu ci nit ku baax du ko wax parce que lii diine diine chrétien dafa wax ni nañu partager solidarité yërmande te comprendre di ci suñu biir lu tax mu bon man damay laaj Marie fa fa la jëlee bon bi astafurlah ci man la ko jëlee waaye lu tax mu gën bon man ni man mi bonoon eh, koo xam ni bu ko gis nit ku ñuul problème yi en France kan moo ko indi bu waxee ne nit ñi ñuul yi nañu génn léegi ñi ñuul yi dañuy mer ñoom tamit def ay attentat France yàqu soo bëggee dara da na naxante ba toog nga def li waaye yow toogagoo nga ne suma toogee ñëpp di ne ñu génn kon yàlla du wax yow nga toog man mag la wératuma li ma bonoon yëpp eh, maa ngi koy rëccu soxor naa woon tàng mbàq yooyu yëpp bàyyi naa ko léegi mbàq bu sedd la yor ba pare baax mari moo bon mari moo yées mari mooy jéeg boo bon yéen waa Sénégal ak jigéenu Malien yi il faut jamais jamais jamais euh, quand vous priez le soir il faut prier à Dieu que mari mort na dee na mari dee yéen yi man suma sante yàlla yéen lay sant fii laa dëkk avenue Pontoise quatre-vingt-quinzième mais saa yu leen toggee mbaxalu soos da ngeen may yàqal ak puuj paaj da ngeen may yàqal ak ritax mu jàlli ak dëxin xàcc bu ànd li moom ne ko ci pàcc mu xeeñ loo neex kon yéen yéen a ma faj lu tax muy wax seen sëbu kanji di am ay butit lu ñun ñoo gën a lekk lu bon tubaab yi dañuy lekk y a des tubaab mm. qui mangent les les les jinax te kenn waxu ko li léegi dama bëgg yéen africain il faut leen mari ko mu ngeen taasul ko lii mu xam ko kooku mari mari mari Marie bilay Marie bon Marie Le Pen bon elle est mauvaise elle est elle est elle est mauvaise kan moo bon mais kan moo bon mais yow kan moo bon kan moo bokk bon kan moo yées Mais qui est mauvaise Marie, mauvaise Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais Marie yaa bon yaa bokk bon Marie Oui, oui, oui. Gueye Kër Massar avocat groupe Futurs Médias waxuma nag kuy plaidé waaye nag ca fans club ba daal wax dëgg yàlla fu werante am ci jëm ci groupe Futurs Médias dana taxaw lay ba mu reen naan soog a ànd ak nag gars yi moom tax koy gërëm di ko nuyu Daba tamit euh, di soppee euh, GFM nuyu nañ ko dëkk ca ville waaye joyeux anniversaire à Maymouna fay dit Mounas démb la woon euh, ca Fass hier le 10 de la part de Matichon Mathieu bi nekk fii ci Télé Futurs Médias ñu koy nuyu ci administration moom mooy souhaité Maymouna Faye ñu naan ko Mounas joyeux anniversaire di nuyu tamit Fallou Ngom Sénégal étanchéité de la part de Cuq Cuqule si lay Gorbal si ñu koy nuyu di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Baye euh, euh, Baye euh, ñoom Baye Euh, Libaas ñoom Nanette ñoom Mbaye ak ñoom Ndiaye ñoom Ayta ak euh, Assane ak Ousseynou ñaari seex yi de la part de Mbaye commercial moo fa jaar di leen nuyu di am mbégte contentement tamit euh, ci maxu lébu gi di ko ziar bu baax waaye tamit di wax ngañ Demba coiffeur bu mag bi nga xam ne nag moo nekk foofu. doomu ndey Balla Gaye ak Malick Gakou de la part de notre ami Go Fall waaye di nuyu tamit suñu yaay mère Fatma mère Fatou Ngom euh, ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, madame Thiam Fatou Fati euh, ñu ngi koy nuyu ak ki nga xam ne nag moom mooy Thiam nekk xam ne nag moom mooy Raay bi FM nuyu nañ ko di bu baax suñu yaay booy Adja Ndeye Ndiaye nekk ci Italie dëkk bu ñu naan Civetella de Romagna di nuyu tamit sëñ Fallou Mbacke docteur waaye nag suñu yaay ji nga xam ne nag mooy amal meeting le 27 foofu dëkk boobu ñuy ñaan tamit meeting boobu nag stress dellu si waatee mooy bi ñu gis Souley Kouthia moo taxit sant nañu bu baax ba ñu gisee Kouthia moo tax bés boobu ne leen ci biir bés ba Kouthia ñëw war a a ñëw ak ñu munti ñëw rek danañ leen def cadeau boo xam ne dina jógee ci Italie ñëw ci euh, Sénégal ndax sargal bi nga xam ne nag euh, moom ne leen El Hadj Abou Bilal di indil maanaam stress bi ñuy dund li ko El Hadj Abou Bilal di ko dàq ak groupe am boobu moo tax ñoom ñëpp ñu kontaan di ci nuyu Birane Gueye ak Baba euh, coiffeur plan Jaxaay de la part de Leus Baro maire Maymouna li ci Tëngéej monsieur Sow Tëngéej et sa fille Binta Sow ak euh, dëkk ca di ñu naan ko ka Batin Kabat Kabaton Kabaton Tin ñu koy nuyu ak maire Mariama Keita Kolobane maire Mariama Konaté du euh, Touré ñoom ñëpp loos boro daal nee na gërëm na leen bu baax di am mbégte contentement nag ci képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan émission bi di gërëm ñëpp fàttewuñu kenn nag di gërëm képp koo xam ne tamit kilifa diine nga ñuy am mbégte contentement bu baax a baax a baax ci ki nga xam ne nag moom mooy maam tuuti Camara ami Sow euh, fàttewuñu tamit bu baax ki nga xam ne mooy Rama Sow chéri Loek nekk ca Belgique Nogoy Diba chéri Fallou Sarr moom nag moo doon anniversaire bi ca Belgique ñoom ñëpp kontaan nañ mbokk yi nag Randa moo ànd ñu spaghetti bu neex la bu tàngee neex bu seddee neex strong shake bii wax nañ leen ko soo ko defee crème glace pour xale yi buñ ko màccee day mel ne dañu lekk glace boo xam ne dañ ko defar ba pare am na solo trop danañ ko jëfandikoo vitamine C la di gërëm tamit bu baax nga xam ne ñoo ñëw di wax mbokk yi nga xam ne ñooy euh, sponsor yi ibbi nañ bunt yi ñëw leen incha allah lépp dina baax bu sobe yàlla ndax euh, jàmm rek mooy am bu sobe yàlla te visibilité bi fii la yàlla dafa leen jàmm ñu ñëpp kon euh, Pape Samba ñu ngi lay gërëm ak équipe technique bi ñu fi nekkoon ñëpp jàpp ci ñu seeti Qatar Karim Wade mi nga xam ne problème bi nationalité yi da koo yëngalaat ñu xool lan lay décidé def Karim Wade ca Qatar lele cha Sir, good morning. He says, this is day. Umu Kasim! Yes. Your telephone. This is. man kenn du nekk ci dëkk jàmbur ti allo stop tonton Madické ginnaaw ay jàmm sama papa dégg ko génn na tey ci journal bi nee na Macky Sall li mu def tegu ko fenn affaire nationalité yi muy wax nii c'est vrai Macky na noppi sinon dinaa wax lan moo tax ñu rawale ma dinaa ko wax du noonu tonton Madické bugguma ay waxtu xam musuma mere nii eh si musuma mere nii musuma mere nii na arrêté wax affaire nationalité yi na ko arrêté li ma indi moom xam na ko bu yàggee dinaa wax dëgg bi te lii métti ci côté lay féetee it's the business ok yamba yi ñoo may bës te loolu taxuma jóg tey waxuma ak kii dama ne non la yambaax dama ne ni yambaax jigéen ñi taxaw di ma bës tonton stop lele qu'est-ce que c'est tonton Madické Macky Sall na bàyyi affaire muy wax nationalité man olof la sénégalais la na ma bàyyi tout tranquille sinon dinaa wax li xew yes maa ngi lay déglu maa ngi ànd ak del mën naa ndox give me tea stop allo oui d'accord dootu ko waxati su waxati bu génnati bu toogee di wax affaire nationalité buy génn laa wax buy génn buy génn may wax la mooma jëlee foofu te su ma ko waxee du baax ci mooma parce que wax ji moom mooy fekk si bakkataar te fii dama fi ñëw boo noppali ko defar sama yaram ak sama xel man góor dëgg laa du ma yembaar toog naa ci kaso bi gisuma ndey gisuma bay gisuma jigéen gisuma euh, dara ma mun ko ànd ak sama kon buñ ma buñ ma buñ ma yëngal ok ñetti at man kese ak yàlla ci kaso ma mun ko ba génn di ko su muy commencé di wax na na arrêté ok ok yow lay déglu sotti ok ok ok ok No, this is. Oui, ok. D'accord, ok. Ok. Damay ñëw damay ñëw tout de suite damay jël sama bagage. Come back ici, ici, ici. Ici, ici, back. damay ñëw parce que bu noppiwul tamit dama noppi. gënuma ndey gënuma bay. suma bay président la. pourquoi muy wax affaire nationalité kii la arrêté si na ko arrêté. man du man ku ñàkk fayda mosuñu ma gis question wax bu mel nii. yes, Look at it. Okay. Okay. Okay. Look at it. Okay. Okay. Look at it. Okay. Look at it. Look at it. Okay. Okay. Look at it. Okay. Okay. Look at it. Look at it. Okay. Okay. Look at it. Okay. Okay. Look at it. Look at it. Look at it. Okay. Okey okey Madiki. Okey. Okey okey Madiki. Okey. Okey okey Madiki. Allo okey. Allo okey allo. Allo allo. Allo. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it.